وقرطار قرى إلى الله يوعدو ينال مقام الله رجال خيري سيطان تيون تجار ndaw sunu seex bi sigil nga ndaw sunu yoon wi kadaar yofoor yi nga ràngoo ci yoonu tiijaan alquran mooy tànkam sunu si yeneen mooy diina sib du seetaan ci yoonu tiijaan ndaw sunu seex bi sigil nga ndaw sunu ko def sunna yeneen bi beesal ci yoonu tiijaan sikil ganda usulu sunu wi ya for yi garaago ci yoonu tiijaan waaye itam daf koy bañ xamul ko sax noo def sunna yonen bi beesal ci yoonu Tijaan ndaw sunu seex bi sigil nga ndaw sunu yoon wi garaat ya for yi garaago ci yoonu Tijaan lu lënt tam du ko laal moom na buy du ko feeñal nga moo yem ñëpp yoonu Tijaan ndaw sunu seex bi sigil nga ndaw sunu yoon wi garaat ya for yi garaago ci yoonu Tijaan lu lënt tam du ko laal moom du na buy du ko feeñal yoonu Tijaan Basiiru ndaw sunu seex bi sikkil nga ndaw sunu yoon wi garaat yo for yi garaago ci yoonu Tijaan Basiiru ndaw sunu waaji suñ koy tudd nañu jaayu jaral ñu ñun ñu di fecc ci yoonu Tijaan Basiiru ndaw sunu seex bi nga ndaw sunu yoon wi garaat ndaw sunu seex bi nga ndaw sunu yoon wi jihaad ya foor yi nga ràggoo ci yoonu jihaad jamaano ji li ndaw da ko wax moom jikkoy yonen bala làqoo ci yoonu tijaan sëriñ Omar ci da baayam baatu kun la ko bàyyee xasal na ko sogo dem moom ci yoonu tijaan njaboot gi ñépp la xaasal góor ak jigéen ñu ngi màggal say xooxamar mi ñu tànnal tariqa tijaan jullit yi yépp nañu farlu te xam ne ñun ñoo rëy may say xooxamar mi ñu xam tey mu mel ni tijaan basiiru ndaw nañu xeesal cofel ci moom di ko màggal ngëbal ci moom duñu perte ci yoonu tijaan del moytu tooñ mosu koo saf jàng ak julli lay digle wasiifa hit di ko sellal ci yoonu tijaan habiibu ndaw ci di rakkam dayloo mbiram ñàkk caaxaan lu seetaan ci yoonu tiijaan sëriñ tala li mu làmboo cosaan nga yit moo yem ñëpp xam yàlla bari jagle ci yoonu tiijaan taayiru ndaw mi da laabal xolub jullit du ko seetaan ngëbal ci moom di ko màggal ci yoonu tiijaan basiiru ndaw sunu seex bi suñ koy tudd nañu jaayu jaral ñu ñun ñu defee ci ci yoonu tiijaan xaliifatu lañu jiital njaboot gi yëpp lañu yaakaar góor jigéen di ñu ñaanal ci yoonu tiijaan xam ak jub lañ soxla wetu yaram gudd fante cër yi it ñu da ciy jëf ci yoonu tiijaan mu ca xiwal yal na sax ci yonentu beeg sunu seex mi amin gaa yi nangu leen ñaan ci yoonu tiijaan mu ca xiwal yal na sax ci yonentu beeg sunu seex mi amin gaa yi nangu leen ñaan ci yoonu tiijaan mu ca xiwal yal na sax yonentu tiijaan تبارك الله سن الخالقين جرجف نياغي من نيهنا لول تتغونا سي يون واكاي مولامي نيغي لين دي نيو كين كو نيك ساتو ak sa sante di wax ne hit dañuy di waxit ne daairatu xorwatul wusxa jërë ngeen jëf fa tabarakallah liggéey bi rafet na xaw na yoon ba léegi ñuy laajte sabab siyaar bi duñ jóg di tey di ko wax kii mooy xalifa war a jóoba ndaw ñépp nag nañ ko yàlla fi lool xandak wér xandak sago su ko defee daf si am ci ñoo xamante ne moom moom lañ tànn tàllal ko loxo ne ko may ñu wér ñooñu ne mu may wér nag nak ay ndaw ñoom ñoo xalaat ne xat mu jot nañ seet benn bis dem ci suñ sëriñ ñu siyaar ko daayira boobu la soog loolu nag ñu tuddee leen orwatul wusqa lan fi saama laha daayira boobu nag ñoo wax ne heure buñ tam xaritee ba ca suma ka mooy seen bisab siyaara siyaar boobu nag ñu koy yëgal képp kuy jullit képp kuy xarit képp kuy am di jàmm bis boobu nag bu jotee dañ la ko yëgal bëgg nga ànd ak ñoom gunge leen ci seen ñu teew jëppal ko seen bi ñu ngi ñaan nga nangul ñu siyaar bi nangul ñu yëngatu bi ba ñu ko waxee xawoon naa jafe ndax joxe woon nga ci ngànt ndax day mel ni da ngay day niru ci koo xamante ne xelam dafa ñaaw mën na koo traduire leneen ñu topp ci di ñaan ba nga nangul ñu ko waaye xiit nag lu taalibe sàggan sàggan sàggan dafa bokk ci sottaay tariqa bi nga siyaare ci sa sëriñ ñaari yoon kon nag ñi mu may wér tànn bés ne dañ koy siyaare te it buñ koy def it kat sañ nañ koy yëgle loolu rek mooy wax ji fa tabaarakallaa ñu ngi jox daayira bi dafa am porte parole ñu koy wax Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye moom soxna Khadijatul Kubra moom Seydi El Hadji Omar mbooloo mi ñoo ko tànn ne bu ñu dewee ci kanam sëriñ bi yow la ñuy jox kaddu yaay wax sunu wax bëgg nañ it bu daanalee kaddu ku mel ni alaaji Ndiga Dramé ma la ci kër Serigne Fana bëgg nañ mu sànni ci kaddu alaaji Momin Dramé ba la dëkk ca Bousra tamit bokk ci mag ñi fi des bëgg nañ ñu sànni ci kàddu te ñu gàttal kaddu yi loolu mooy wax ji su ko defee ñu jox sëriñ bi kaddu gi mu wax ak jullit ñi ñaanal leen yeewi leen ñu dem ba déwén incha allah. Seydou Cheikh Ahmad Tidiane fa tabarakallah bismillah mbooloo mi Seydou Cheikh mu ne asalaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay siyaare. ne sëñ bi ñu ngi lay siyaar. ak sa njaboot. julit ñi fi teew. de ñaanit nga nangul ñu siyaar bi. sëriñ bi xorwatul wusxa nee na adiyee jaa noonu mu ne léegi bi may wax. maa ngi wax ne tariqa Cheikh na Tijaani moom ci boppam bokk na ci sattay tariqa bi nga dem siyaari sa sëriñ ñaari yoon ci at mi lum néew néew num gën a bëree gën a baax bu ko Cheikh na Tijaani waxutoon mu ne dañ gis sa baay bind ne taalibe bi waan yu asima umura shayqi fi saayirin wa baatinin bi shayqi buñ déggutoon li Cheikh Tidiane wax gis li sa baay bind danañ ko def màggal sa mbiram sëriñ lu ci gën a màgg tànn bi sa Ashura ñëw seet si la ziyaar la mu ne dara gënut ko ca màgg sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga nangul ñu siyaar bi mu ne nga yëg ne mbooleem ko fi nekk sa njaboot la sëriñ bi mu ne yow lañ tànn de. ay taalibi lañ yoo xam ne. ay taalibi lañ yoo xam ne. nit mën nañooy gis. nit mën nañooy gis. foog na ci caaxaan la ñuy dox. waaye fit wa mat sëkk. ful la jamat sëkk. da jamat sëkk. moom la ñu ànd ak yow. mu ne tumi tumi wuñ de. fiñ jëm fi xam nañ fu mu doo ñii mag nettali nañ ñu li sa baay daan wax ci yow ñu ngi dugal ci sa nopp yi ziar bi ba bis bi jant bi di fenkee ci xarfu bi ziar bi la bu mu dog bu ko dara yàq mu ne yàlla la ñuy wut soo ko huutee ci bant ba taxaw xam yàlla wasabihan nafsaka في التجلد براشد عبد العلي سني واتنا تيال نعبد العلا هبوم ني باس باس mu ne te kooku lee garab la doon daaneel ci ndigalal wali yow xam yàlla mu ne kon yow ku xuutee ci yow yàlla dana am mu ne dekk nañ suñ loxo yi bi xoolu nañ la yaakaar nañ la doyloon nañ la lu ñu nit mën a wax loolu le faxas nañ ko mu wadd ñu ngee ñaan yàlla yàlla bàyyi la fi de loolu le koy ñaan sëriñ bi mu ne nit ñi xam nañ ne yow suñ njëriñ nga de moo tax ñu de ñaan ndax nit du bañ boppam yàlla na la fi yàlla bàyyi maqamam Seydi El Hadj Omar ñu fiy ñëw di la fi fekk nga daam kattan xam sago xamdal ba bu ñëwee nga mën a génn ñu gis la nga delluwaat mu ne loolu la ñu koy ñaan ca say taalibe lañ salaatul faatihi bi ñuy wér yow yaa ñu ko jox xoolu nañ ne buñ waxee suñ borom na ko suñ sëriñ baal ñu ko fi lu ñu la gën a bëgg kon dana la fi ba te yàlla na la fi ba de mu ne li des bokki taalibe mi la koy waxaat mune fi moy mooy suñ kër sëriñ ñoo am it sëriñ bu mat sëriñ bo amé sëriñ bu mat sëriñ da ngay fexe nek muridu sadiq bo jógee di siyaar ji boo di siyaar ji nga dak nga dàkk siyaarab Abdu Xaadir Jaylaani min mulkani nuqman suma la si saaramaal jaylani mo ne ñaar ñaar noonu nak Abdu Xaadir jaylani sen siyaar ba loolu de taxul ñoo jóg ñaar ñooñu le Abdul Xaadir Jeylaani siyaaram ba moo ñu tax a jóg te kam siyaara ji woon mu ne niroo ngeen dara donte kon nag yow kenn xamut ci yow dara waaw waaw nee na taras dara seetnut waaw wallaay nee na taras mu ne yàlla na fi yàgg de mu ne ñu ngi lay siyaar lillahi wali rasuli mu ne suñ xol yi féexal nañ la ci yow dong lu taalibi de jëriñ sëriñ dañ ko def ñu ngi dégg suñ looy le sëriñ da jëriñ taalibi ci yow lañ ko yaakaar mu ne sëriñ bi ñu ngi lay siyaar de siyaar si njaboot góor ak jigéen di xeesal suñ pas-pas suñu bëgg suñ teew ak suñ fàddu yaay suñ sëriñ de suñ daaw mooy suñ ren suñ tey mooy suñ xëllëg duñ la wor mukk gisuñ suñ <laughs> bopp de yow rek lañ gis gisuñ keneen it aarifi nii dañuy wax ne ñun luñ gàtt gàttaala wa bëgg giñ la bëgg tax na ñuy gàttu seen i mbir ndax yow ku la jege faw da nga bëgg yàlla ndax bëgg nga yàlla mu ne gis nga li nit ñi da wax tegaloo leen suukar de yàlla ne ci suñ gémmiñ yi dañu wax loo ñu da wax de yàlla ñu ebal ne dem leen siyaar ji xalifa Bachir ñu ñëw siyaar la waaw waaw foog ñu wax ne mënuñoo ñàkk a def loolu de seeti wuñ borom alal seeti wuñ buur benn sañ-sañ indi wuñu bi burul yàlla yàlla nañ fi yàgg sëriñ bi mu ne loolu sax yàgg fi nit ñi soxla nañ ko de waa ma sawud fa yasxabu jufaafa wa amma ma yanfahu nnaas fa yamkusu fi l ard yàlla na la fi yàlla ba de wax di saraan wa ahmaalan mutawalatan yàlla la ko yàlla jox ahtil hayaati wa irsaadi bila xisarin yàlla la ko yàlla jox waatina rabbi aqwaman mukasharatan yàlla la ko yàlla jox nawil iqaamata wo ahtil maqaanata wo yàlla la ko yàlla jox yàlla la fi yàlla ba sëriñ bi maqaamam Seydi El Hadji Omar ci la ñooy la nga amu dañaan yàlla mu bala fi mu ne yow jëriñ nga ñu de nekk giñ fi nekk wallaay soppi nañu wallaay dëgg la wallaay dëgg la mu ne gën ñoo bëgg yàlla nangu nañoo wér da nangu nañoo wutaam nangu nañoo jaamu yàlla mu ne loolu la soo nee koo xam ne noonu la la soppee mu ne lool la moo gën ci sopp de waaye sa baay moom moo noon jot lii bi xaqin yaqinin akkumun sabiqan bi shefqatillaahi bi shefqatillaahi moom yàllaa ko suub mu suub la ñu ngi lay dégg suñu loxo yi sëriñ bi léegi cuub ñu koo xam ne yàlla la bëgg jox ñu yàlla ku bëgg alal tibal jox ko ku bëgg a tukki jox ko visa ku bëgg kër naam ku bëgg kër naam kuy ngoro te jëlagut na jël ku ngoro gut na ngoro ku bëgg xaj màkk na dem jigéen ju bëgg jëkkër na am ku ciy sëy na sëy bi barke waaw waaw mu defee ne ñu ngay jégalu ndax yëf yi dafa neex ñëpp borom félicitaires yi génnee nañ seen galaas joxe ko xaddiyee ci bés bi ay jigéen lañ ñii fañ wére di bëgg a wér la koy diis ñii de kër lañ bëgg nañ ko am xam na ñoo xam ne waaw mu ne su ko defee mbooloo mi yëpp fañ waxtaan ñuy sàkku ci yow bu ñu fi yàlla bayee ba déwén. bu ñu fi yàlla bayee ba déwén. li ñu génnee ko ca biti. ndax barab bi xat na. yokku na. te it kanam la jëm de. mu ne suñ pas-pas loolu la ci ne. loolu la ñu la koy ñaan. lillaahi wali rasuli. xam ne. màggal sa mbir rek. fi saahirin lañ koy defee. baatin bi suñ xol yi la. bi seex ñu ngi ci la. mu ne loolu la ñu ngi la koy ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Cheikh Ahmada Tidiane ok tabarakallah jërëjëf tabarakallah alaaji ni nga bisimilaay moom asalaamaaleykum wa mbooloo mi El Hadj Ndinga Dramé ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. ne ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. ñu ngi nuyu sëriñ bi. ñu ngi nuyu sëriñ bi. ñu ngi ay wayjur. ñu ngi ko teg ci loxo sëriñ bi itam. mu jot pille ko mboolem njabootuk Seex Daañu Mar Ndaw doom yi ak sët ak soxna yi ñu ngeen nuyu ñëpp di leen siyaara di leen jottali itam siyaare way jure yëpp alhamdulilahi rabbil alamin mu ne sëñ Cheikh Tidiane jërëjëf Ndiaye xol yi sedd nañ pas-pas yi it yeese na bis bii bis bii ko képp koo xam ne laal nga ci sa làmmiñ nan nañ ko def nga ñu ñaan sëriñ bi mu nangu. kólle mu ne yéen de sant ngeen sëriñ bi de waaye képp kuy ñëw it yéen laay sant ndaxte kan rëbb du tuuti mukk ci rab yi nga xam ne moo rey mu ne loolu moo waral bés bii képp ko xam ne ñëw nga fi dana nangoo xomatu topp ci seen kaw ngeen diigu ko ci seen këri maam ndiigu ko ci seen nijaay ndiigu ko ci Cheikh El Hadj Omar Ndaw ndiigu ko sin Cheikh Tidiane ndiigu ko ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ñun xoolu nañ leen diggante boole lu ñu teg leen folle waxuma sëriñ bi waxu sëriñ bi waaye yéen rek ñun xoolu nañ teg leen suñ diggante ak sëriñ bi ñun loolee xoolu nañ te buñ ko defee suñ wax ak suñ loxo dana joti kon nag bis bi dafa xat ñun fas nañ xéene fas nañ xéene takk nañ suñu ndigg def buub suñ baab jox ko yéen sët yii fu ngeen bëgg ñu xaw ñun nañ ko yëg rek waxul seen way jur yi de waxul seen maam waaye yéen sët yii fu ngeen bëgg ñu xaw ñun jox nañ leen buum def ko ci dox jox leen ko fu leen neex rek ñu xaw mu ne day wax toujours ne ñun mbokki taalibe yi nañ góorgóorlu place boo xamee ne yàlla suturaal na la benn place ci Sénégal yow fa nga doxee gune doxee fa taalibe boo fa bàyyeekoo foo dem nekk kalifa foo dem nekk fa mag waay waay waay waay place boole nañ ko fonk nañ ko xormaal itam mooy fii nag mu ne yéen seen taalibe koo xam ne xalif na ko te duwul yéen moom la neex waaye alhamdulilah rabbil alamin yàlla jox na leen yar jox leen teggin ba ku ñu daje nangu dogal ñu dellu sant yàlla baax sëriñ bi ñu am luñ lay bëggalee yow yaa ngi ñooy ñaanal texe ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi jaamu yàlla yaa ngi ñaanal teraanga yaa ngi ñaan teraanga àdduna ak ju àllaaxira ñu ngi liggéey yaa nge bañ ku ñu fitnaal yaa ngee bañ yow ku ñu fitnaal ñu ngee daw tooñ te yow rek yaa tax mu ne kon li nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane wax fii loolu moom la ñu dëggal rek ñëpp ñu ngi jaamu yàlla. ñëpp a ngi jaamu sa place bi. koo xam ne dana gaar si fii ci sa place bi. dana jaamu yal dana jaamu yàlla. ku fee gaar si ku fee gaar si. dana liggéey dana liggéey. ku fee gaar si ku fee gaar si. dana toppatoo njabootam ku fee gaar si. koo xam ne xam nga doomu baay. wala doomu ndey wala jarbaat boo gaaree file boo fi génnee da ngeen toppatoo. mu ne ndaw jërëjëf sant nañ bu baax. kaddu gi ñuy wax. ñuy wax nag. mu ne kaddu këlifa yi. ci lañ ko wax ndax alaaj maa gàdd bu ñëwaan fii mooy toog di wax. mu ne loolu ci lañ koy wax. ak rakkam ya nga xam ne. ñu ngi toppoon ci kawam. te mënatuñu ñëw ndeysaan. bu nii ñun itam jox nañ ñu suñ kaddu. ñun daal li ñuy def mooy yeesalaat rek. yeesalaat pas-pas. xeesal kóllëre. salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ndaw yàlla na fi yàgg tuwér. وقرطار قرا إلى الله وحده ينال المقام الله رجال خيري